salaamaaleykum mbokk yi donc ngir abonné ci suñu chaîne YouTube Xarala TV da ngay tàppee Xarala TV boo noppee nga xool ci chaîne bi bouton bu ñuy wax bouton s'abonner bu fàttee bu salee cloche bi ngir mën a jot suñu yeneen vidéo bu la neexee ci vidéo bi ngay seetaan tamit jot wetu ndeyjoor ga am na bouton s'abonner ak bouton cloche jërë ngeen jëf. voilà asalaamaaleykum euh, mbokk yi ànd ak seen euh, chaîne euh, YouTube Xarala TV tey ñu ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo am solo comme ni ñu koy defee chaque fois rek tey nag ñëw ngi war leen benn application bu am solo boo xamante ni li muy jëriñ mooy maanaam récupérer sa li nga xamante ni mooy sa photo yi nga xamante ni da nga koo supprimer na parfois nga supprimer say photo nga jékki-jékki bon soit par erreur wala nga jékki-jékki soxlawaat ko ngay def ne woo oh, man photo yi perte naa ko nan laa def ba ma ko. donc ci bu gaaw rek euh, ci tënk euh, dañuy ñëw ci loolu euh, mu gën a gaawee donc dañuy dem suñu menu Play Store donc Play Store xam ngeen ko mooy fi ñuy télécharger application yi donc sur la barre de recherche nga tap ngeen tapé disque D I hmm, espace D I G donc disque digue moo nekk noonu donc da disque digg ngeen tapé moo nekk noonu digg soo ko tapé voilà après nga def recherche hmm? donc ñu ci application bi moo nekk nii ci kaw ngay gis nii disque digg moo nekk nii lay ab après nga installé ko on va l'installer vite fait allez on va euh, donc application bi lim lay jariñ mooy euh, boo perdre ses photos nga mën ko récupérer bu gaaw te doo ci jafe-jafe lettre a nga xamante ne ko tout ça comme ni ñuy wax rek chaque fois quoi dans la dans la dans euh, rien ne se rien ne se tout se transforme donc euh, donc loolu la pas dire que supprimer nga ko rek da nga koy ñàkk carrément donc tout moment mën nga récupérer ci sa téléphone donc mu toll n'avance pas ça avance. Allez, allez. Donc, on va patienter, télécharge. C'est parti. L'application de la Bunda, la bouille, 2 mégas, parce que, donc 1,6 mégas. On a connexion avec Manik Mohawa hier, mon qui, donc voilà. Parrain de presse. Donc voilà. mu ngi téléchargé léegi mu pare voilà donc téléchargé na ko pare mu ngi installé donc donc en cours donc on va patienter un peu. On va patienter encore un peu. voilà di wax ni am na yeneen application yu koy def ah bëri na yeneen application yu koy euh, ay photo recovery ay yooyu yëpp ay requis photo yooyu yëpp dañ koy def quoi mais bii tey dañuy indi rek xëy na bokk na ci gën a yomb a utiliser hmm, donc après nga ouvrir ñu tijji ko ah donc boo xoolee démarré na ko voilà léegi li ñuy def mooy dañuy def benn scan maanaam dañ koy wërloo foto yi ñu dañ koy wërloo photo yi ñu supprimer ba pare d' accord donc bouton bi la ñuy bës bouton. start basic photo scanner ah. fii la ñuy bës ah d' bi la ñuy bës d' accord ñu bës ci bu ci donc da lay demandé nga autoriser ko moom mu accéder ci téléphone bi parce que application bu mën doon nag bu mën di doon amul droit amul droit sa téléphone te yow autoriser ko donc voilà donc application bu mën doon nag boo ko installé daf la war a nga autoriser ko ba pare donc nga autoriser ko on va l' donc boo xoolee démarré na hmm, nga gis ne démarré na léegi mu ngi set fii ci suuf boo xoolee nga gis mu ngi set scanning hmm, donc moom mu ngi set mu ngi set scanning allez mu ngi set photo mu lay wax fi muy wër fan lay wër instant bi day wër disque yëpp nag hmm, il va chercher dans tous les téléphones euh, répertoire par répertoire dossier par dossier bu nekk mu xool foofu lañ fa supprimer donc boo xoolee instant bii mu ngi ci benn dossier benn dossier la nekk la tollagul ba léegi donc dañ koy xaar mu pare voilà patienté donc bu ñu bindal fii zero file mooy gisagul dara gisagul benn fichier bu ñu supprimer donc dañ koy bàyyi mu tourner pour Vaturnanko. bon mën nga ko bàyyi bu la neex mën nga ko bàyyi fii dem dem dem def sa euh, wala nga sa liggéey ba ñëwaat donc soo ñëwaatee fekk mu peut-être mu pare daal donc moom no lay def euh, voilà mu ngi ignoré mu ngi avancé donc gis na ay fichiers yoo hmm, intéressé ko donc ça avance ça avance. voilà on va patienter ñu bàyyi ko mu wër ñu bàyyi ko mu wër quoi ñu bàyyi ko mu wër ñu donc tout dépend du téléphone ak taille bi ak données yi yi composé wu donc voilà moom euh, noonu lay def euh, day parcourir tous les fichiers nag ah mu yàgg quoi moo mu xaw a parce que day wër fichier yi dossier yëpp day wër benn par benn du bàyyi dara voilà sama deux giga soo ko bëggee bëri noonu day xaw a métti day jël temps problème boo xoolee euh, récupéré na boo xoolee récupéré na fii euh, neuf mille euh, sept cent soixante-sept ne rek maanaam téléphone dara du ci perte donc sa téléphone sax même bu réeree même su fekkee ne diwaan supprimer toutes les photos sax wóorul waaw sa bu dee heure neex nga a récupéré loolu supprimer woon donc li ñuy jàngale li ñuy jàngale foofu mooy nekkul yow rek téléphone bi moom jeex donc voilà ñun li ñuy def mooy dañuy supprimer benn photo rek bon sama benn photo benn photo la donc li ñuy def mooy dañuy euh, donc soo bëggee pause euh, da ngay bës fii bouton pause bi d'accord bouton bi nga bës pause arrêté ko d'accord suñu doyalee buñ teewlu aussi mën o ko bàyyi mën nañ ko bàyyi pendant une journée mu wër dañ ciy supprimer yëpp d' accord donc photo bi laa bëgg a récupérer par exemple photo bi su ma neexee bon photo yu bëri mën naa rek damay jël benn photo bi par exemple bii nii après boo paree ma def recovery ci suuf donc ci boo xoolee am na benn bouton recovery fii koy yóbbu hmm. Euh, fan nga koy yóbbu euh, ndax koy def ci sa euh, ci sa répertoire téléphone wala nga envoyé ci serveur wala nga envoyé par email wala par whatsapp d'accord bon après foofu nag yaa xool def quoi d'accord bu la koy def ndax def musique la def wala dans dans picture par exemple nga waxoon ko la neex na nga travail defend ci téléphone bi d' accord dans picture par exemple fii laa bëgg a def ok gis ni euh, bon da dama nekk def mise a jour bu nekk am version professionnelle la neex aussi mën nga def même chose recovery nga def maanaam ngay transfert directement ci benn application hmm, d' accord nga def koy def nga def euh, WhatsApp laa koy envoyé par exemple je sais pas email par exemple mail laa koy envoyé wala fu la wala nga def ko nga def ko ci sa ça la c'est la publicité quoi pour demander passer à la version pro donc fii aussi mën nga def euh, nga passer ci Euh, envoyé WhatsApp wala Facebook wala ku la neex yaay xool boo gisee fii nga koy envoyé voilà ñoo euh, mbokk yi donc ngir abonné ci suñu chaîne YouTube Xarala TV da ngay tàppee Xarala TV boo noppee nga xool ci chaîne bi bouton bu wax bouton s'abonner. bu fekkee bësalee cloche bi ngir mën a jot suñu yeneen vidéo bu la neexee ci vidéo bi ngay seetaan tamit jot na ndeyjoor ga am na bouton s'abonner ak bouton cloche jërë ngeen jëf.